na mooy yoot Sénégal bu dee matukaay yi nga xam ne moom la ñu war a jëla jëla ñu ko ndax lu toll si ñetti fan am na lu toll si ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci coronavirus bi tëje bëri na ci lalu hôpitaux yi ñoo xam ne ay ndaw lañ yu nekk cas grave yéen kaay gi ne na li nga xam ne moo jaaxal kilifa yi nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér gi yaram gi mooy coronavirus ak ndaw ñi nga xam ne ñoom lay jàpp ba pare di leen di def ay cas grave loole moo jommal gaa yi yéen kaay gi di direct news xëy diñu xibaar naan ñu xalif général des mourides di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou Diop daan nay a ndigal nee na masque yi ñu koy takk waaye nag mbooleem ñi nga xam ne ñooy dugg ci jumaay Tuubaa ji nañuy raxasu ba laal gel ba takk masque yi loolee ndigal la loo ne ma ngi bàyyi ko ci xalif général des mourides nee na mbooleem loo ne ay matukaay la jëm ci aar wopp ji di coronavirus na si askan wi taxaw xar ci seen tànk Tuubaa yéen a kaay gi du l'Observateur nee na en bi maanaam ci ma nga fay jàbbaa jongeelu dara jëru la maanaam na a baax fi nga xam a général de Mourita wax na gaay yi ñu takk masque yi yéenekaay gi di Dakar Times bàyyi mbir moomee wax ci chef d'état africain yi nga xam ne ñoo ngi ci guddi gu bët séddagul la ndax jamono ji nga xam ne moom la ñu toll bëri na ay chef d'état africain yoo xam ne ñoo ngi leen di wàajal ngir rey leen fan yi ñu génn am na ñaar ñoo xam ne daat nañ leen di assassiné ku ci mel ni Jovenel Moïse mi nga xam ne ay jamono moo nekkoon njiitu réewum Haïti ak Idriss Déby mi nekkoon njiitu réewum Tchad yéenekaay gi nee na Assimi Koïta mi nga xam ne jamono ji moo jiite transition bi ci Mali moom tim bëggoon nañu ko rey yéenekaay Walfadjri xëy dañu xibaar nan ñu tabaski gi nag tax na ndakaaru njaay jamono ji aw xottu la ndax lépp loo xam ne jëm na ci wàllum jënd ak njaay maanaam dafa tëj dafa fermé wu kenn amul foo jënde ku bëgg a dem tamit doo dem ndax transport bi jamono ji maanaam dafa tëgg témbe yéen kaay gi di réew mi ko di jeex xëy dañu xibaar naan ñu ginnaaw benn at bi nga xam ne jóge na ci poste porte-parole gouvernement bu France di Sibeth Ndiaye jamono ji na dafa bëgg a dellu siwaat ci langue politique gi yéen gi xëy na di ñu xibaar naan ñu ana lan moo tax Emmanuel Macron daal di soxla ki nga xam ne mooy Sibène Ndiaye gars yi ne nañu élection présidentielle yi nga xam ne mooy waaj moo tax te am na liggéey bu mag boo xam ne moom ndaw si def na ko ci image su Emmanuel Macron njiitu réew France yéen kaay gi délibération xëy ci woy yeeg Samba Sourabal yeeg ñi nga xam ne ñooy def ay ñaawteef ci réew mi yéen gi nee na am na ay opération yoo xam ne polis def na ko ci moo taxit lu toll ci ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ci ay samba buy yoo xam ne teg nañu leen loxo yéen gi de las xëy duñu xibaar naan ñu douanier bi nga xam ne moom la ñu faatoon fan yu ñu génn Soros Bousso yéen kaay gi nee na am na kenn koo xam ne ab indicateur bu douane la kookee la ñu njort ne moo def ñaaw teef gi teg nañu ko loxo yéen kaay gi di wal fajiri nee na weeru sulet wi bëri na ay takk der yoo xam ne def nañu leen ay ñaaw teef yéen kaay gi di enquête xëy duñu xibaara naan ñu recours bi nga xam ne opposition bi dugaloon nañu ko ci conseil constitutionnel ngir nag mu nii na la li nga xam ne mooy code pénal code procédure pénale bi nga xam ne lépp aju na jëm ci wàllum xeex terrorisme te opposition bi jàpp ne ay njuuj njaac ak ndagg la ci Macky Sall la la loolee moo taxoon bi daal di dem def ab recours ca conseil constitutionnel waaye nag loolee dañu ko gàntal waa conseil bi ñu leen laajee na leen ana lan moo ko waral ñoom nee nañu intérêt général moo tax ak wàllum jàmm ak wàllum stabilité des institutions yéen kaay gi nee na en tout cas li am mooy conseil constitutionnel jël ab dogal ci ñeenti membre yéen kaay gi di direct news ñu fekk fa nguudu bu ba di ab constitutionnaliste ne def nañu ko tiguñu ko fenn ndax yow conseil boobu nag lu toll si juróom ñaar ci ay juge la war a bu nekkee ñeenti juge amul amul benn dogal boo xam ne war nañu ko mën a jël te nag dañoo violé li nga xam ne mooy article quatre-vingt-neuf yéenekaay gi di quotidien opposition bi ñoom nag nee nañu juge yi ji daan nañuy firndeel njébbalu gi nga xam ne jébbalu nañu ko ci Macky Sall yéenekaay gi di Stades xëy dañu xibaar naan ñu FC Barcelone ba léegi ma ngi am ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum salaire waaye nag ci ay xibaar ki nga xam ne nag mooy Kylian Mbappé gars yi nee nañu Real Madrid la jëm ki nga ne mooy Cristiano Ronaldo maanaam jóge Juventus Lamine Golo école de lutte Balla Gaye numéro un nee na Balla Gaye numéro deux bu jàkkarloo ak Bombardier dina ko defal affaire yéen a kaay gi nee na en tout cas combat bi nga xam ne moo war a dox diggante Balla Gaye numéro deux ak B52 gars nan la ñu koy organisé ak coronavirus bi journal bi nee na ki dëgg làmb ji nee na lu toll ci juróomi junni ci ay nit lañuy ñuy bàyyi ñu dugg arène nationale la. société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen revue de